jigéenu Business Events vous présente deuxième édition vente privée du 6 au 12 juin à côté du conseil régional face au Dunia bu Assalamu alaikum Wa Thiès man la Aram Lay madame Fall wa Kër Serigne Saliou business ma ngi leen di nuyu di leen jox waccu way di ñëw fi tay pour ci suñu deuxième édition

waajaale ci tabaski gi parce que ñëpp xam nañ ni génn nañ ci korité ñi ngi dugg ci tabaski incha allah donc euh, loolu lañ leen di indil bu soobee yàlla dina am euh, xeet bu ne daal lépp loo xamante ni nii jàpp nañ ne période boobu war ngeen ko mën a soxla bu soobee yàlla di ngeen ko fa fekk parce que euh, ñiy def prêt à porter ñi ngi fa ñiy jaay jesner ñi ngi fa di ngeen fa fekk tailleur sax boo xamante ni boo ñëwee mu kubal la ñawal la bu soobee yàlla jaaykatu vaisselle yi aussi ñi nga xam ne dañoo namm dressage yu baax nañ ñëw ñi nga xam ne dañoo bëgg sañseel seeni doom nañ ñëw ñi bëgg a décorer seeni kër nañ ñëw ñi bëgg a takk bijoux yu baax yu rafet yu raar originale 2 grammes bi xew ci jamono aussi di ngeen ko fa fekk ak yeneen ak yeneen maanaam daal feeme sax am na fa donc ñi ngi leen ci woo ngeen ñëw soutenir ñu jàppale seen jigéen yi jàppale sen rak yi jàppale sen jabar yi ci kaw ci kanam Thiès ci lu baax inshallah allah. Sénégal jaay ngeen. Thiès Business Advance vous présente deuxième édition vente privée du 6 au 12 juin à côté du conseil régional face de Dunia bu Salam alaikum wa Thiès man la madame Diagne PDG complexe Xonay Couture ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant.

ñu wax nag waa Thiès yéen ñëpp ngeen jug dañoo def première bi Thiès xar ñu daal di réclamer deuxième bi. ma ni bu kenn dem marché di ko buuxante ñëw leen ci foire bi yu baax yëpp a nga fa jesner yaa nga fa prodé yaa nga fa ensemble xar ah décoration chambre yi nag lépp a nga ci biir bu kenn dem marché xat na tàng na da ngay ñëw jënd teel a jënd daal di denc waa Thiès jug leen jàppale seen i jigéen seen i sœur seen i soxna ndax nag Olof Njaay dafa ne. doo lay jël ndox waaye doo lay saxaar raay ñoo leen jàppale seen i jigéen ñu yëkkati Thiès ca kaw ca kanam. asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum àdduna man la madame Diallo nday Soxna Diack euh, PDG service traiteur à table à Thiès. Euh, dañu ñëwoon tey di leen invité ci suñu vente privée bi ñu ngi koy organiser incha allah. du 6 au 12 juin à côté du conseil régional face de Dunia Une deuxième édition, parce que nous avons fait une première édition. Mouner, Machallah, les gens ont apprécié, les gens nous ont félicité nous avons dit nous sommes daal nous avons kontaan nous réclamons kanam ñu réclamer une deuxième édition donc euh, ñu avons dit jàpp date nous nga xam tabaski ñu bëgg proposer Thiessois yi ay euh, bagages yu doy il y aura ñuy ñaw dina am ñuy jaay prêt-à-porter dina am ñuy jaay vaisselle dina am ñuy jaay ay parfums de chambre ay bagages yu jigéen lépp lu nit soxla inshallah allah di ngeen ko fa fek. ngeen bëggee xar ndax ci veyu tabaski la donc on invite tout le monde ñu ñëw jappalé ñu comme nous ñu defoon ci première fois bi parce que première fois bi wa Thiès ñëpp a takku don ben ñew dolel ñu ñu def une vente privée bu magnifique c'était vraiment super méga extra bien ñu leen ci sante di leen ci gërëm bugg nak ñu dabaliko defaat une vente privée bo xamné kenn du dem comme madame Guèye nim ko waxé di dem marché di buxanté di sonu di ñak non non non ku nekk àndal ak sa njaboot loo soxla di ko sur place ñu proposer les loo leen lekk de di rafraîchir loo de di solo loo leen di defaree seen kër loo leen di xeeñalee neex seen kër lépp y aura des artisans y aura euh, euh, made in Dubaï made in Turquie made in tout made in Sénégal ñu ñu proposer leen loo xam ne lépp day baax ànd mudon doon lu rafet lo xamne initiative buñ def la ci Thiès bëgg diko perpétrer ndax yëkëti Thiès dolel Thiès suqali Thiès yeen ñëpp ñu ngi leen di sante di leen gërëm di leen xaar inshallah ñu ngi leen di sante di leen. jigéenu Sénégal jaay yéen ngeen. Thiès Business Evans vous présente deuxième édition vente privée du 6 au 12 juin à côté du conseil régional face de Dunia bu salam alaikum Thiès salam alaikum lan moo xew jigéen yu baax yi bëgg seen bopp faaru fan la Thiès la fan lay xewee ay waay fii ci Thiès jigéen yu baax di bëgg seen bopp def nañ ko di ko defaat kañ la le premier juin ba le 6. juin nous koy wax à bépp di ko dégg wàllu këpp niam ñaamati ko ñaam ñaamaat ñu ngi